abonné leen seen seen YouTube Partout TV moom mi Partout TV abonnez-vous Partout dal leen ak jàmm mbokki internet yi di leen wax woy leen di abonné te ngeen di bës cloche de notification bi yéen ñu mën a dooleel seeni j'aime ñi ngi koy xaar ngeen j'aime vidéo bi bu baax a baax dañuy dellu si waat nag ci ay jàngat yu yaa rek gannaaw jéye ji nga xam ne rek am na démb dal ci kaw ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko nekk mbir mi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee fu ñu mën a toll ci biir réew mi ak bitim réew gannaaw nemmeeku tuur yi nga xam ne rek reprendre na ko. comme ni nga xam ne rek noonu la ko xamlee woon commencé ko fu fële ca diwaanu Tiwaawoon jàpp Cees daal di koy commencé ni ki démb wante kat mën nañ ay yuuxoo yu méttee méttee métti sax daal dina fay mujj jib gannaaw ay nervi yu nga xam ne rek defati nañ seen manin comme ni nga xam ne rek noonu lañ ko jotee ci ay information nekkat attaque bi nga xam ne rek daal dinañ koy def jëmale ko ci kaw kii nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko ak ay alliés ci wàllu politique ba tax ñu gaañ ci ay doomi aadama yamuñu ci loolu ñu yàq fa ay oto yi ñu nga xam ne rek dañoo àndoon ak kii di président Ousmane Sonko comme niñ ko faral di defee rek mën nañ ne dugguleet ndaxte foofu la ca diwaanu Mbàkke toj nañ fi pare ki nga xam ne rek moom mooy kii di président Ousmane Sonko ba taxoon sax ñi nga xam ne ñoom ñooy ay alliés ci wàllu politique maanaam waa Pastef ne woon dinañ def benn collecte bu nga xam ne rek dañ koy jëndal voiture blindée mbir moomee kat mën nañ ne moom moo répété waat kon nag galgal bi nga xam jamono bu nekk rek dañuy faral di ko nemmeeku fii ci biir réew mi saa su ne bu fekkente ne kii di Ousmane Sonko dafa war a génn amal li nga xam ne rek moom mooy liggéeyam ci wàllu politique fii ci biir réew mi dañ ko koy yàqal nekkat kon ana justice fii ci biir réew mi démocratie timit mën nañ ne zéro mbir mi ni mel nag daal di jur li nga xam ne rek moom mooy coow parce que nag nekkul mbir mu nga xam ne rek dañ kaa war a seetaan mu daal di sedd ndaxte kat saa su ne mën nañ ne li ni mel moom la nemmeeku fii ci biir réew mi saa yu Ousmane Sonko di génn jàngeen jëf.